يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنا الله الذين صدقوا وليعلمنا الكاذبين ñi ñu jëkkoon natt yi jànkonteel moo gën a métti te yàlla def yàlla boo xoolee saxaaba yi fi jaar fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna te loolu ñu jaaruñ ci moo tax Sëriñ Tuubaa wax na ba muy yebal yebal yeble ca quatorze geeru quatorze dix-huit ñu bari xamuñ na mu demee am na ci loxo xam du neex a wax ci borom waaye sëriñ bi waxoon na ne da doon te bi muy jihaad yi jëmmam la demee yóbbaale kenn ndax bañ kenn ku ci faatu. astaxlisu li nafsi si jihaad jëpp mel na moo ko yoroon du ci kenn bu ndam la dikkee mu tasaare ñëpp bokk. ndegam nag fa yàqutuloon wu yàqutuloon rek mënta ñàkk moo tax ñam yabaloon ci guerre ba ña ca waroon faatu loolu ko indi. am na si ñoo xam ne itam sëñ bi da leen di jullee ngir xam ne dañuy faatu ci guerre ba kon Serigne Touba kenn mënu ko fay loolu jël jël suñ lépp jox ko te bañ koo booleeg dara ndax neewoon nag ku ma jox sa lépp ma yorul la sa lépp ku ma jox sa leen jox téye sa leen la nga jox ma defaral la kon nañ Cheikh ba jox ko suñ lépp te bañ cee sa dara neewoon nañ ku ma jox sa jëmm. ma wóotu la ci jëmm te ku ma wóotu ci sa bopp naa fa xam loo fa xamul man fa loo fa mënul sañ fa la ko suñu kon nag nañ sant yàlla bu baax a baax te xam ne ñu baax ña njëkk ànd ak Serigne Touba Cheikh Adama Gueye Samb Sëñ Darou Assane Ndiaye Sëñ Modou Fadiama Niang Cheikh Ibrahima ñëpp dañoo jëloon seen lépp jox ko Sëriñ Tuubaa te desaluñ dara. am na génn kilifa bu mag ci ñoom ci Cheikh si mastama wax ne ma Sëriñ Tuubaa de ku ci ne mel ne kooku liggéey ci Cheikh su ku lam la waroon a fay ne nga dangaa jëloon sa jëmm jox ko mu fa mu fayewaay la jënd jëm mu sax yow la liggéeyal. waaye kenn ku ci ne yemu ci jox la jënd la la teg sa ginnaaw ñu kon Sëriñ Tuubaa man jaa bil hasanati falahu ashru suñ borom di fay rek ni lay fay mooy benn boo ko defee mu fay la ko ay téeméer te kenn ko ku ma sa jëfal ak sat la képp ku ma sa rotal ba àdduna tukki say sët teraanga day sat noonu te leen dugg mu yóbbu leen kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax te gën a àndandoo gën a bennoo gën a àndoo gën a bennoo ndax wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu suñ borom ko ci alxuraan digal ko jur ji wa takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr واللي أمر المعروف إن عن المنكر ولكم مفلحون وأيتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ديال الوحي ولا تنازعوا فتفشلوا وتصبريكم بولين دي خجو نحن بولين دي خجو سيان دول دينيو كون ينتاري بي تندقلوا الشيخ محمود متحا دي فدل عندي قلوا سنتوا ndax moo ñaanoon ne te sëñ Saliou bokk na ci xasida yi mujj jàng waxtaan wi mujj wax tari na ci xasida la ya rabbi al muridin maa fi hisnika al alxasini wa shaml al maa yow suñ borom maa ngi la ñaan taalibe yépp nga dugal leen ci al hasin bi nga xam ne ku fa tàbbi dara dootu mënu ko dara mënatu ko bët deer sa caw waaye nag maa ngi lay ñaan nga dajale ma sama mbooloo mbépp ba dara mbañ leen tàggale kon nag taalibe bu ne na fexe ba góor góorgóorlu mbokkum taal bi moom gis di xool Sëriñ ci moom bu dee xool Sëriñ Tuubaa ci moom gis lu ko naqari man noonu laay doxee képp ku ma gis bokk ak yow Sëriñ xool ci képp ku ma gis nga taalibe Sëriñ ma def la sama bokkum taalibe nga xam ne taalibe ka am képp am solo te Sëriñ Tuubaa lim ñu boole mu ñu ko séddoo kenn ku ne Sëriñ Tuubaa defal na loo ko mën a defee kenn ci kenn ci ñëw kenn ci ñoom ku ne ku ne boo xoolee jëmmam ji suñ Tuubaa rek moroom mënu ko def lu ko naqari ndax nit moom bu xasee bëgg suñ Tuubaa rek man gisatuma si sikk koo xas bëgg suñ Tuubaa rek gisatuma si sikk te loolu nag dafa ñëpp rek te ku xool leneen ko bokk te adduna lu mu bugg yàq ko bakkan lu mu bugg yàq ko xoolee da suñu jëmm kenn ku ne na may jëmmam magi taalibe yi de ñoo bokkoon sëñ bi bokk benn naan waaye mosoo cee dégg ñaari mag ñoo xam ne jàppante nañu kenn ku ne yaa ngi xool sëñ Tuubaa sa morom foo fekk sa morom mu gën a la sa jëmm saxaabati saxaaba yi kat loolu la leen alxuraan tagge woon wa yu'thiruuna ala anfusihim wa law kaana ba mu bëggee xam ba xam dégg nañ ko déet da leen a taañal aw taañal aw ñoom yoon doo ko ndawal ni ci biir ñoom ñëpp ku ko daj bàyyi ko sa morom ba ndab la jeex doog a ndaw wala des nag mu xam ne digg nañ aay bi wa yuusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun kon fu ngeen la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax rek fu ngeen déggee ñaari xëccoo adduna tax waaye kon bu fekkee Sëriñ Tuubaa kese kese képp tax kenn du ci xëccoo ndax julli kenn du ci xëccoo koor kenn du ci xëccoo natt ak asa kenn du ci xëccoo dem Màkka kenn du ci xëccoo liggéey Sëriñ Tuubaa kenn waru ci xëccoo bu ci xëccoo amee rek kooku na xoolaat boppam te bu ci bi duggee seigne touba génn kon nak ñi leen di sant bu baax leen gërëm di gërëm njiitu daayira seigne sëñ jay ci ité ma passage pasteefam ma taxaway ak mbolam ñu ko andal ci dëkk yëpp ndax kenn mënu dara mbolo bolo gi ngeen def motax li ngeen mën ko def di gërëme seigne bakki jay ci taxawaayam ak pasteefam ndax bañ duggé ci réew ba nag ñoo andal waye pas pas taxawaay bi ne woon ci sëriñam rek mom lay gis ci moom kon ñi ngi sant bokk taalibe bi ñëpp di leen gërëm di leen ñaan la ci barke Sëriñ Tuubaa te ngeen doogu ci gëm ko rek xam ne xasida yi moom bu ngeen ko dee ko sellal tey daje ci kër Sëriñ Tuubaa ñi du ñëw daay rëy nañ ci gën a góorgóorlu ndax lii néew leen Sénégal ku ne Sénégal ku yaa ngi julli ci ajjuma di siyaari jumaa ji di siyaari borom Sëriñ Tuubaa di siyaari kon fii moo fi kër Sëriñ te kër Sëriñ Tuubaa kat nañ leen xam ne bu jamono naxee walla ñàqare am wala jafe-jafe am ku dugg kër Sëriñ Tuubaa raw fa kon nag war leen bàyyi ba jafe-jafe wala tiitaange am ngeen fay door a dem bu fi kenn nekkut tam ngeen war fay siyaare kenn dee leen fi ñëw te xam ne Sëriñ Tuubaa a leen lii gis ndax ñun ñii kat ñu jàkkaarloo seen bët yi mënu leen a jëriñ dara lu ma seen seen pasteur Sëriñ Tuubaa mm-hmm. siyaare si ngeen ñu siyaare si itam Sëriñ Tuubaa rek ngeen ci yaakaar mm. waaye du suñ jëmm yi mm. kon bu ngeen ñu gis itam te kër gi nekk di kër Sëriñ Tuubaa tam bu ngeen amee përsif ak doogu te ñaan fi mm-hmm. te am ci yitte përsif na ngeen war a Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi ci soññ ñëpp di ci góorgóorlu ngeen gën cee góorgóorlu xam ne kenn liggéey du Sëriñ ko ndax ñaari waxtu yi nga bàyyi wala ñetti waxtu ay bis ba ay bis ñoom ci kër Sëriñ Tuubaa bi loolu yàqul leen dara adduna nag day loo xam ne ko topp du jeex adduna ku ko topp du yéex kon waxtu yooyu ngay bàyyi ngir liggéey la ko Sëñ Tuubaa mu wóor la yaa ngi ci Sëñ di ko di ko seeral yàlla di ko seeral Sëñ Tuubaa moo xam ne daal muy loo xam ne daal la jariñ ci adduna la jariñ ci àllaxira loolu ñëpp ci war di soññante ku ci gis sa mbokkum taalibe bi ngeen dëkk nga gis moo taayil ci daayira yi bu ko defee dee ko soññ ndax wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr te ay jullit fu ñu nekk dañuy soññante rawat ne taalibe bi Sëñ kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu